yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen nin ko baaxoo def dimanche bu nekk euh, wax dëgg yàlla namoon nañ leen trop ndax daanaka toll na ak léegi soo moytu lu tollook ñaari weer jàngunu sabab bi nag xam ngeen ko waaye alhamdulillah yàlla dimbali nañu tey ba noo ngi nii di tàmbali sharhu du'a min alkitaabi wa na tey noo ngi jël raful aydi fi du'a ginnaaw ba nu yàlla santee ñaan jàngal ñu nu nuy ñaanee tey bokk na ci li tax yàlla di nangu ñaanu nit yaakaar naa ne loolu amul kenn ci ñun koo xam ne war naa def yitte pour xam ko li tax yàlla di nangu ñaanam ana ci ñun moo bëgg su ñaanee yàlla nangu ñaanam lu dul dana bëgg xam yan yoon la war a jaar pour yàlla nangu ko loolu nag bokk ci na ci raful aydi fi du'a booy ñaan yàlla nga yëkkati say loxo mu ne wa hada adabun azim loolu nag teggin bu rëy la nit loolu ñu naan euh, dëju ci suuf teg ay óomam daa di sëggal boppam yëkkati yàlla ñaari loxoom nee na loolu teggin bu rëy la yadullu ala zulli yi day wane ne kii ñaan day toroxlu waa day wane ne kii ñaan moom moo ngi toroxlu ci kanamu boroomam subhanahu wa taala day wane ne moom mu ngi suufe suufelu ci kanamu buur bi nga xam ne moo ko bind mu ngi tàllal ñaari loxo moom waajooju raaxiban waahiban taamian mu ngi xemmem yàlla mu ngi yaakaar yàlla mi ngi wane ne moom amul yàlla am mu ngi bëgg aussi yàlla lim koy may yàlla defal ko ci barke waaw moo tax waa ji tàllal loxoom yàlla aussi defal ko ci yiw defal ko ci xéewal bu màgg màgg màgg màgg màgg mu ne wa kullama azamat xaajatul maxluuq saa yu yitte aw jaam réyee saa yu soxla jaam réyee dana yaakaar boromam tabaraka wa taala pour yàlla fajal ko aajo yooyu dana am xemmemte xemmemteef goo xam ne yàlla subhanahu wa pour mu regleel ko aajo bii nga xam ne moom la am kon dana laaj fil ilhaax muy ñaan lu bare bare bari di delluwaat moo tax yenn saa nga dégg boroom xam-xam bu ñuy naan ñu naan ya allah ya allah ya allah di ko woo di répété waat baati wa baalig fi raf yadayhi yenn saa yi sax nga gis ku yëkkati loxo ba poqataanam yi feeñ jàng ngeen ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waa ji ba muy ñaan yàlla dafa yëkkati loxo yi ba poqataani keroog Badr yonent bi ba muy ñaan dafa yëkkati loxo yi ba poqataani génn ci la saxaaba yi xam ne poqataani yonent bi amuloon kawar ba kaala gi daal daanu ci bopp bi Abubakar jël tegaat loolu muy wane mooy mutazallilan toroxlu mutawassilan jokk ñëw na ci xadis yonente bi alayhi salatu nee na inna rabbakum tabaraka wa taala xayyun karim yastaxyi min abdihi ida rafaca yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran xaa'ibatayni suñu yonente nee ci xadis boo xam ne eh, boroom xam-xam yi noonu ko nettali xadis bi nekk tawaatur jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne seen borom tabaraka wa kuy dund la te ku tedd la xayyun karim xayyun karim moom yàlla yastaxyi moom yàlla rus na min abdihi ci jaamam yàlla rus na jaam boo xam ne dafa yëkkati ñaari loxoom iza rafa yadayhi jaam bu yëkkati ñaari loxoom ci kanamu yàlla ñaan ko yàlla rus na delloo loxo yooyu neen du ci def dara gis nga loolu ndax nit aajo bu mu am bu mu rëy na toog ci kanamu boromam yëkkati ay loxoom ñaan yàlla bu jaree jooy mu jooy bu jaree yuuxu mu yuuxu loolu day wone ne yow amu xam nga ki yor tàllal nga ko loolu dafa bokk ci teggi ni ñaan yàlla rus na nit ku ko tàllal loxo yàlla delloo noonu loxo yi rek defu ci dara dara dara dara ah yàlla du buur boobu kon mbokk yi fi raf il yadayni fawaidun wa mutanafi kasira fi lubudia lillahi taala yëkkati say loxo booy ñaan yàlla ay njëriñ yoo ci nekk yu baree baree baree bari bokk na ci premier bi fi maddil yadayni ziyaada fi tazallul ki ñaan yàlla tàllal ay loxoom dafa yokk toroxloom dafa won ne yàlla moom miskiin la moom amul moom dafa ñàkk wa iftiqaarihi lillahi rabbil alamin moom dafa soxla yàlla ci jamono ji muy ñaan mu ne wa haza huwa ruuxul ibaada lii nag moom mooy ruuxu jaamu yàlla kon premier bi premier njëriñ bu ñuy jëlee ci ñaan di yëkkati loxo mooy kii ñaan di yëkkati loxoom dafa toroxlu ci yàlla di wane ne moom miskiin la dafa woo yàlla boroom mbindeef yi ñaareel bi fiihi iqaazul qalbi wal fikri ñaan yëkkati say loxo day yee xol day yee xalaat day wone ne waa ji sàgganewul ki muy ñaan moom xam na yàllaay boroomam xam na ne am na boroomam boo xam ne bu jàqee bu ko woowee mu wuyu ko su ko tàllalee ay loxo mu defal ko ci dara moo tax kooku xolam dafa yeewu waaye ay xalaat tamit tamit nelawul loolu mooy ñaareel ñetteel fii wasila ila alxusuu qalb day wane ne jumtukaay ngànnaay buy wane ne xoluwaa ji di tàllal yàlla loxo xol bi dafa toroxlu ay cëram dañoo toroxlu dafay wane ne moom mii di ñaan yàlla am na buur boo xam ne moo ko bind moo ko moom moo ko sant mu def moo ko ne boo ma soxlaawee rek woo ma tàllal la say loxo ma daal lay nangul la nga bëgg ñeenteel fii iqraarul bi quy bi day saxal day saxal ne waa ji yëg ne yàlla moo fi ne kenn newu fi ko dul yàlla yàlla moom qaimun ala kulli shay yàlla taxaw ci lépp mooy assamad moom lañ jublal mbir yi te moom mbiram jubluwu ko ci kenn moom yàlla tabaraka wa taala moom mooy sottil mbiri jaam ñi kon moom mooy ñeenteel ci màndarga kii ñaan bëgg yàlla may ko juróomeel fii iqraarun li karamillah taala kii ñaan mi ngi saxal mbaaxu yàlla kii ñaan jublu yàlla tàllal ko ay loxoom bokk na ci njëriñ yi mu wone mooy mu ngi saxal mbaaxug yàlla ndax dafa xam ne yàlla ku baax la ku ko ñaan mu may la moo tax mu tàllal koy loxoom waaye wa azimi yi ne yàlla moom mbaaxam dafa màgg moo tax mu ne su ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale te nee na bu ngeen ma ñaanee ma may leen waa kon mbokk yi tey su fekkee ne am na buur boo xam ne u bindu moonu moom moonu sàkk moonu ñu ne man rus naa ngeen tàllal ma seen loxo ma neenal loxo yi kon ndax ci ñun jullit yi ku sa aajo rek leetul ndax war nga koo jàmbat ci kenn déedéet waaye nag yaqiin moo fi nekk ak kóolute am na jaami yàlla yoo xam ne leer na leen ñoom bu ñu sukkee ci kanamu yàlla bu ñu yàlla bu ñaanee yàlla yàlla may leen ndax dañoo wóolu yàlla waaye am na jaam ñoo xam ne ñoom dañu naan ah man de jarul may ñaan ba ba léegi maa ngi ñaan aw ma tus mooy ñàkk kóolute kon sooy ñaan sa dangay am yaqiin am kóolute ci moom ne moom moo la wax ne ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne la man yàlla rus naa nga tàllal ma loxo ma delloo loxo yooyu defalu la ci dara kon waajooju aussi dafa yëg wastishaari juudi dafa yëg ne yàlla ku tabe la allahu akbar xoolal mu ne doomu aadama boo koy ñaan toujours da lay mere yàlla nag boo ko dul ñaan toujours moom it da lay mere sa waajur sa papa la wala sa yaay la wala ku mu mën a doon soo koy tàllal yàlla loxo bis bu nekk dalay lay mere yàlla nag boo ko dul woo nekk mu mere la nit boo koy woo bis bu nekk mu mere gis ngeen kon contraire bi yàlla jalla jalaaluhu soo ko dul woo bis bu nekk dalay lay mere sa mbokk mbindéef yi nga xam ne sa wayjur sax bokk na ci boo koy woo bis bu nekk dalay bañ kon du benn sunu borom nag daf lay won ne yow mii yënga ne yàlla ku baax la yënga ne yow dangaa ñàkk yënga ne yow mënoo yënga ne yow yoroo moo tax nga tàllal yàlla say loxo subhanahu wa nga yëgal ko yow alxani yaay ki oomal yaay ki giijal yaay ki am ba mooy juróomeel juróom-benneel fii iqraar min al abdi li uluwi rabbihi taala day wone na kii ñaan yàlla tàllal yàlla ay loxom day wane na yëg na ne moom dafa saxal yàlla ci kaw la nekk moo tax mu tàllal ay loxom yëkkati ko yëkkati ay bëtam jëmale asamaan dafa saxal yàlla ci kaw la nekk taala fawqa kulli shay moo nekk ci kaw ñépp jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo féete ñépp kaw falahul uluwul mutlaq moom yàlla moo am kawe goo xam ne dañ koo boyal mu téem ñëpp tiim ñëpp ñëpp kaw sunu boroom min kullil wuju ci mboolem anam nag boo ko mën a jàngatee rek sunu boroom noonu la tiimee nit ñi uluwul qadr moo leen tiim ci kattan uluwul qahri moo leen tiim ci noteel uluwu zaat moo leen tiim ci jëmm ñett yi mooy am sunu boroom mooy ki kawe jaam ñi ci seen kattan lu waaye am kattan kattan yàllaa la ëpp kattan lu waaye am nooteel yàllaa la mën a noot huwa al qaahiru fawqa wa uluwul zaat yàlla moo gën a kawe jëmm yépp bu fekkee ne lii am na fa yasiiru lil qalbi samadan dana mujj nekk yokk xol bi yokk xel mi takk bu rëy yattajihu ilayhi mu jublu ci yàlla waaw mu jublu ci yàlla mi nga xam ne saa yuy ñaan day yëg ne mankat sama borom bii moom lay ñaan juróom-ñaareel fiihi istishaar azamatil xaaliq kii day moom dafa am yëg-yëg màggaayu boroomam waaw moo tax moom du ñaan kenn am na waajoo xam ne dafa tëdd guddi di nelaw mu gént ñu ne ko duyal sa oto bi ba mu fees def ci ration lépp lu doomu aadama di soxla nga dem kër diw nga fëgg su jógee nga jox ko mbir yi waa ji daal di yeewu ci guddi gi daldi sol ginnaaw maalu oto bi ba mu fees ration lu nudd dinde ceeb dëwlin suukar nangam nangam ba mu fees mu dawal oto bi ba kër waa ji daal di fëgg waa ji ubbi mu ne ko lii de laa la indiloon waa na ko wàcceel mu wàcc ba muy dem mu daal di génne carte visite bu am numéro téléphone am adresse mu ne waa ji bu liy jeexee rek woowaat ma téléphone ma indiwaat waa ji ne ko déedéet man kay soxlawuma sa carte visite bu liy jeexee kila la yebal nga ñëw fii kooku lay tàllalaal loxo rek waaw su liy jeexee ki la tere nelaw yee la ci guddi gi yabal la na nga ñëw ci man sarse sa maal ba mu fees kooku laay woowaat rek da koy yàlla kon gis nga kooku wone na ne soo soxlaa yàlla ngay woo saa yoo woowee yàlla yàlla mooy yëkkati jaam yi ñu bàyyi seeni nelaw bàyyi seeni yitte nekk ci sa problème ba mu rek lañu doo doog a dem ñibbi allahu akbar mbokk yi kon juróom-ñaareelu tomb bi mooy istisaar azamat al taala wa annahu fawqa arsihi yàlla mu ngi ci kaw arsham jalla jalaaluhu fawqa saba samawaat ci kaw juróom-ñaareelu asamaan waaye wa huwa yasma'uhu wa yara yàllaa ngi foofu de waaye daf ñuy dégg di ñu gis wa yaalamu bi haalihi yàlla moo xam sunuy aajo xoolal yàlla mi ngi kaw arsh mu ngi ci kaw asamaanu juróom-ñaareel waaye mu ngi nuy dégg mu ngi nuy gis xam na suñuy aajo dara nëbbutu ci moom wala yaxfa alayhi shay dara nëbbatuwul ndeysaan yàlla mi nekk kaw asmaan dégg nga nekk fii ci suuf di ko ñaan naan yaa rab yaa rab tàllal say loxo wala nga sujjóot di ñaan yàlla jalla jalaaluhu mbokk yi loolu amul lenn lu ko gën a rëy ci kaw suuf mbokki jullit yi juróom-ñaareel tomb yooyu ci la ñuy tënk waxtaan wi incha allah bàyyi li ci des mu nekk seeni laaj ak nammanteeku ak uh, ziyaarante ñoo ngi leen di ziyaare yéen ñëpp di leen baalu àq ci gëj diggante gi waaye sabab bi ni ma ko waxee woon sànq yéen ñëpp xam ngeen ko ñoo ngi leen di jéggalu incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu bàyyi leen ak uh, question yi incha allah